maam jaara eh tegal sac bi amoore maam jaara teel naa téye sac bi naan da lay nga xëy de yoo laa xal amoore maam jaara tegal sac bi amoore du yoo laa xal de <laughs> amoore maam jaara mi ngi may tooñ de <laughs>